ci ñi seede ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne mat nañu juróom ak lu tegu ñu dem indi benn seede boo xam ne kenn gisu ko bi ñuy dem gendarmerie kenn gisu ko bi ñuy dem juge d'instruction kenn gisu ko ba démb démb démb ñu dem làqarti ab témoin boo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko ko def loo te liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce senegal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaata ñaata yoon la woo Ousmane sonk ci justice ci lu tegul ci yoon. ñu xam ni procureur moom mooy programme te procureur mooy Ismaïl Madior Fall Ismaïl Madior Fall mooy Macky Sall ñu ne nag citoyen du négocier ay conditions yu mu demee man négocier ma conditions yu ma demee justice dama négocier wul dara dama ne liñ ma bëgg a teg su dee du yoon duma ko def man négocier wu ma de ndax doo nekk ci dëgg ba pare di négocier niñ ma bëgg a ah di di tëj sama koñ di terroriser sama njaboot di toj samay oto. Dima gagne, filé fileeg looloo ngi fi du dem uyu ji du négociation donté nak amna ay kilifa yo xamné ci kilifa justice la la bokk dem ba nakarlu andak ak nun ni li ñu def du yoon ñom ño dem jël sen initiative wo len ne il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun dem di ñew saa koy teg li koy teg ñoom nag ñu jàpp ni man maa doon négocier man négocier wu ma de man li ma nekk dama koo gëm nekk ci dëgg ku ma ëpp doole di ma soo may rey di ma rey ci dëgg waaye négocier wu ma kon ni ñu ko programmé ci fan yi yëpp procès sur procès bu la ci gën a ñàkk solo nga ne bii la te lépp ngeen xam lan mooy jubluwaay bi ñu ne woon donc gàcce gi am démb. ay nit yo xamne ñaari at ñu ne yor nañu ay preuve yo xamne bis buñ ko génnee aduna tukki defena kérok rek bu may mujjé wax néna len ku and ak Ousmane Sonko bo tëddee demal nelaw ba yandor ndax lu toll ni tarfata ay ci preuve amuñu ko ndax lu am moy am preuve waye lu amut mënul am preuve mbokk Sénégal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle na ci jigen banan maangi dem di sif jigen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa Sénégal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du dem seetlu lu niroog dàngin gu AVC ma moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yàlla xam na ni su doon lool rek laa soxla jigéen rek laa soxla bëri na foo xam ne bu ma fa xoolee tàllal loxo ne soxna laa bëgg ñu may ma tout de suite kon ban rafle laa war a am ba di lambar lambari naan maa ngi siif ay xale yu jigéen amul benn jote boo xam ne am na sama digganteeg xale bi waaye ay nit jël nañ ko ñëpp xam ko xam ni Mamour Diallo moo sumboon mbir mi ànd ceeg maître Gabiso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg ojo yooyu démb li tax tegu ko ñëpp dégluwaat ko lu dul laaj ne ko ndax audio yi nangu nga ko mu ne ko waaw nangu naa ko maa ko wax waaye dama doon kaf koo xam ne nee nga dangaa ëmb depuis ñetti at wala ñaari at ak genn wàll wasino ñu ne li tax nga wax ko dama doon kaf dama doon naxeete nga dellu si ni yor naa ay preuve yu dul jeex mi ngi fii sama téléphone mosoo génnee ay preuve nga dellu si def say audio wax lu doy waar loo xam ne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour Diallo moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caaxaan bi lor na doomu aadama yu bëri du bakkani ci rot rek waaye ñaata ay alalu jàmbur yàqu na ci ñaata yoon la ñu jël réew mi naj ko ba kenn noo noo yeetu ak image bi ñu yóbbu ci Sénégal ci international man mii nga xam ne may principal victime bi bu ma amuloon sama fulla ak ndëgër laay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni du ma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko du ma la musa rusloo su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii Macky Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy jëlewaat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot waruñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom lu ñu bëgg a def loo justice dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci Masamba faalewuñ ci Mademba faalewuñ ci preuve faalewuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan leen ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci senegal rus naa ci am naa ci lu ma naqari li tax nag suñu xel warul dal ci justice ni muy doxee ba tey xam ngeen ni li xew démb yoon dafa ne munoo atte nit en matière criminelle lu dul am na ku koy layal aboka kenn mënul def procès te avocat amul démb ndey soxna su dul ndey ndey xadi njaay su dul dara sax di jigéen goo xam ne mu ngi toll diggante ñu naan juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer nga téye ko si suba ba xaaju guddi nanguloo ko sax mu am aboka bu toog ci wetam ñu ne la bu amul avocat da nga war a arrêté ba ñu ko may ko mu dem uti ay avocat nga doog a def procès bi li xew démb musul am ci histoire justice ci àdduna nga ne faw rek ma def procès bi mujj gi moom lañ doon wax moom Ndeye Khady ndax am nga laaj yooy laaj témoin yi ndax moom mooy avocat wu boppam procès boobu dafa nul amul fenn ci àdduna naka la ay juge mun a defee loolu ba pare ñu ne ñu na seen xel dal dem leen rek ngeen wuyu bu amee ñaari sénégalais yu gëm ni dossier boo xam ne politique a ngi ci Macky Sall ne dee rek même su ma dul doon candidat sax Ousmane Sonko il faut mu yóbbaale ko ay nit dem di toog ak moom ay nit yu nekk ci nguur comme yu nekk ci opposition naan ko boo sàgganee ba Ousmane Sonko toog digg na la lii digg na la lële nee na dina la def nii na la def laa mu ne bakkanam la ci teg faaw rek mu yóbbaale Ousmane Sonko waay waay waay réew du doxee noonu. réew lay doxee ci kaw ay charge li war a tere Ousmane Sonko nekk candidat dafa war a doon lu wóor te wér waaye du ay caaxaan bi ñu commencé ba léegi ci tappale la nekk nee nañu Ousmane Sonko jot na convocation waat naa ci yàlla billaahi wallahi bu dee jot naa convocation yàlla na ma yàlla alak ilaa yow mi te ñoom ñi wax ni jot naa convocation ku ci waat lii lakk commissaire bi bind ne ñëw na sama kër fii si Ziguinchor fekk ma mu taxaw ci buntu kër gi mu jox ma convocation wallaahi waxul dëgg dafay fen moom xam na ko ñoom ñi ko def xam nañ ko te li gën a yéeme nee nañu jox nañ ma convocation fii ci Ziguinchor le 11 commissaire Adramé attesté ko ne commissaire Massali bi nekk Ziguinchor moo mu fekk sama buntu kër même commissaire Adramé moo defaat beneen rapport le 16 ne Ousmane ko jotuñu koo gis joxuñu ko convocation te moom nee na la 11 jox nañ ma convocation document yëpp mi ngi fi nañ ko génn ngeen gis pour woon leen tappale gi nekk ci justice fi mu toll nii ak ni ñuy jalgatee yoon dès lors